kon mbokk yi gàmmo jëppal euh, gàmmo Dakar euh, bi nga xam ne comité euh, de coordination de groupement départementaux bu région bu Dakar Ansaarudine ci njiital président national Cheikh Mouhamadul Mounhamina Ibrahim Niass ci njiital Euh, international Cheikh Mouhamadul Amine Ibrahim Niass mi ñuy waaj a si gàmm googu nga xam ne ren online la te am ay jagle ak ay particulier ak jagle yoo xam ne yu feeñ la ci waxtaan yi nga xam ne moo fi jib ndax euh, am na ci ñoo xam ne waxtaan nañ lu dem ci deux heures de temps euh, wala mooy mooy boo ko xaajee ci digg bi Euh, sëñ Mahi mu bàyyi Cheikh Mamadul Mahi Ibrahim Niass def na waxtaan boo xam ne wax dëgg yàlla ñun ñëpp dégg nañ ko euh, naka noonu ñi ci des ñëpp tey nag ñu agsi ci cappaandaw gi gàmm googu nga xam ne online la te kenn ku ci nekk ci ñëw ñu ñëpp ñun ñëpp seetaan nañ leen déglu leen euh, te amut ci buuxante amul dara kenn ku ne da ngaa sotti ci xam-xam ci niñ ko bëggee àdduna bi yépp seetaanandoor ko euh, tànti gàmmu gi ren di asamaan si euh, wax dëgg yàlla yaatu na lool ñu agsi nag ci ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Amine Ibrahim Niass moom moomu doy na ko présentation ni ko bàyyam présenté àdduna bi yépp mooy dafa wax ne lim am ci may yépp li muy rëy rëy ba ci fay fayda yi ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi moom bàyyi ci la ko amee mbëggeel googu nag ba tax naari gànnaar yi di tuddee baaba wakilul mahabba te mooy dëgg bàyyi daf ko wax ne ko bëgg gi ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi bi mu koy jox lijaasam boobu nga xam ne moom la ko wax ne ko yaa ngi ca digg saalixiine ya euh, te lu rëy lii ma la jox nga war cee nekk sama ndimbal jaar ci sama yoon ci li ma tëral nga di ko wéyal ba ba ñuy daje ca fa nga xam ne fii mooy euh, euh, Cheikh na Ahmada Tidiane yonent yàlla Muhammad Baye daf ko wax ne ko mbëggeel googu nga xam ne mooy mbëggeel ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma amee ci lépp euh, procuration procuration laa la ciy defal ndax damay wax bayti ba waaj waxoon ne suma jongama ji nob naa ko nobel goo xam ne la ma cay doy mooy su may dee euh, dénk dénk ko góor goo xam ne dana mën a continuer nobel googu ahimu fi ahimu bi daadin maa xayaytu wa in amut wakil bi daadin man yahimu biha baadi muy président bi di nga xam ne mooy responsable international bu ansaaru diin euh, feeñal ko bu baax ca Cameroun daan ko feeñal ca Allemagne France ci àdduna bi yëpp ba ca euh, euh, Mauritanie Nigeria tey jii bu fekkee ne moom la xalifa bi jox ndigal euh, doyloo ko ne ko sa kàddu doy na ma pour gàmm googu nga xam ne moom la sa baay joxe woon ndigal ci ndakaaru nga tëjal ñu ko jàngal ñu xatmu bi ba pare jox ñi nga xam ne ñooy mboolem ñiy déglu gàmm gi ci àdduna bi nga joxeel ma suma kàddu kon kàddu xalifa bi gannaaw boo xamee ne baaba jàng na xatmu bi ci alkuraan yi nga xam ne moom lañ jàngoon ci gàmmu gi ñun ñëpp ci la ñuy ànd te amut sikki ne ñun ñëpp danañ tàllal suñuy loxo ci xatmu boobu waaye danañ ubbi suñuy noppi xol ci kàddu yi xalifa bi nga xam ne mooy kàddu yi dénkaane ak yi nga xam ne moom la baaba di tëje gàmmu gi kon ñu ànd ak sayidi bu mawlaaya cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim ñas ci gàmmu gi nga xam ne mooy gàmmu jëppal online bismillahi rahmani rahim alhamdulilah rabbil mustaqima sirata alladina anamta alayhim gayri almaxdubi alayhim wala dalin amin bismillahi rahmani rahim allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad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 بسم الله الرحمن الرحيم لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة بما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم يفلحون صدق بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وجعفر وقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم نوّر به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعله خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ماحلا مصدقا فينا اللهم اجعله لنا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 ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها في يسر منك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال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 فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا أجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج يا ربنا أجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج يا ربنا أجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج وامدد علينا من حماك الأمناء سرادقا من حل فيه يمنعين اللهم احرزنا بعينك التي لا تنام واكرمنا في كنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يغفر ولا يضام اللهم إنا ندرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنسانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا وعاصينا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما آمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين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 الخاتم لما سبقنا الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آلي حق قدري ومقداري العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق الناس للحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آل محمد آل العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما سبق الناس للحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله جلال العظيم سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين يكن لا كنت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

sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar di nuyu bokki àdduna bi yépp fuñ mën a nekk rawatina taalibe Maulana Cheikh Ibrahima yi ak mbooleem soppe yi yépp di sant yàlla tey biñ ñëwee ci suñ kanam sëriñ Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass mi nga xam ne mi ngi toogal xalifa bi fii ci Dakar ñu daje woon fii tey doon xatmu kaamil yi nga xam ne moom lañ doon jàng comme niñ ko daan baaxoo jàngee ci gàmmo Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu giñ daan def gi nga xam ne moom moo ko organisé woon na nañ koy def fii ci Dakar ñu daan ci jàng ay kaamil di ci di ko xaddiyaal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di ko ci ñaanal moom Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu di ci ñaanal réew mi yëpp ñu doon xatmu tey kaamil bi kaamil yi ak àddina bi yëpp ñu ko doon mu tey fii ci suñ kanam sëriñ Cheikh Mahamadul Amin moom la doon jàng noonu xatma bi tabarakallahu ñaanal na ci mboolem àddina bi yëpp ak fuñ mën a nekk rawatina balaa bii nga xam ne mu ngi tourné ci àdduna bi tabarakallahu yàlla na ko fi yàlla jëlee ba mu set wecc xaasal ci mboolem réew jullit yi nag lépp lum ci ñaan yàlla yàlla na ko yàlla nangu yaara bi kon kaamil yooyu moom lañ doon xatma su ko defee ñu déglu nag sëriñ bi mu dénkuñu incha allah ndax sabab bi mooy gàmm gi nga xam ne moom lañ daan baaxoo di ko def fii ci jëppal ba mujj ñu toxal ko ca daarul quraan bu cheikha mariam bintu cheikh ibrahim radiallahu anhu kon comme réew mi nii mu demee ak balaa bi moo tax ñu ne liñ ci daan def te moo di jàng ci kaamil yi xat ma ko su ko defee loolu ñu daan ko def lu jiitu gàmm gi su ko defee loolu moom lañ doon mottali def tey li ci des nag mu ngi ci ñi nga xam ne ñoo war a jàllale kàddu yi incha allah bu ñu sëriñ bi dénkee ba pare jotal ñaan gi itam ci làmmiñam su ko defee àddina bi yëpp dégg ko kon loolu lañ leen doon jottali sëriñ bi bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah. سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم mbokk yi mbokki taalibe bàyyi mbokki julli ñi fu ngeen mën di nekk ñu ngi leen di jotal suñu nuyoo te jiital ci nuyoo bi suñu xalifa muy cheikh na Ahmad Tidiane Ibrahima Niass ak mboolem xalifa yi nekk ci Sénégal yëpp yaa rabbal alamin ñu leen di nuyu di leen fàttali ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne innahu laa yanzilu balaaun illa bi dambi wala yurfau illa bi tawbati nee balaa du wàcc mukk lu may bàkkaat yu bëree ko waril waaye duñ ko yëkkati mukk itam fekk nit ñi tuubuñ tuub gu gu ma sëb moo tax ñun dem ñu ngi tàllal suñuy loxo di tuub sëggal suñuy mbagg di tuub ñaan yàlla yàlla teggil ñu balaa bi ba nga xam ne dégg na lañ ciy desee mbokk yi liñ daan def yëpp yàlla taxoon moo tax dara taxawut dara taxawut lépp a ngi dem di di continuer yàlla nag boo ko amee te jaarale ko ci buntam Mawlana Cheikh Ibrahim da ngay war a doylu xam ne lim la jox wax dëgg yàlla xaju ci euh, xaju ñeewul kenn ñeewul kenn bàyyi mooy sëriñ bi nga xam ne saa yoo ko seetloo gis ne moo mat a def sëriñ bay mooy ki nga xam ne lépp loo xam ne ñu ngi ci moo ñu ko jàngal bàyyi daa daanañu sax ñun ay doomam bu paree la muy wax nag mooy bu ngeen xamoon bi ma leen di xuloo ni ma ni may fàtt fàttee bu ngeen gisoon sama xol bi yàlla wan leen ko ree def leen di jàpp ndax man yërmande rek laa denc sama xol bi dencu ma ci leneen du yërmande kon nag waxtu wi ñu nag nii waxtu balaa la te yonent bi comme ni mu ko waxee la yanzilu balaa un illa bi dambi wala yurfau illa bi tawbati balaa du wàcc mukk lu may bàkkaata ko waral waaye itam du ko yàlla yàlla ko bale mukk lu may eh, eh, eh, tuub tuwal yàlla moo moo moo ko waral te tuub nag mooy comme ni ko fuqaaw yi waxee wa shurutu tawbati an nadamu ala ma fata wa niyatu alla an la yauda fi ma baqiya min umrihi mu ne tuub mooy lan nga bàyyi li nga xam na tuub nga bàyyi ko raxas ko ma cioom ba mu set wet nga ne am yéene ne dootu ko defati ba pare te lépp loo xam ne yàqoon na ko nga jëm koo defaral ñun nag tey ci jamono ji ñu nekk ni muy jamono coronavirus bi ñëpp a ngi tiit ñëpp a ngi jaaxle waaye nag ñëpp nañ xam ne yàllaa ñu ko teg keneen teguñu ko ku moom lépp lu teg doomu aadama lu dal doom aadama bu ko aj masamba bu mu ko aj ma dem ba waaye na ko aj ci yàlla mi nga xam ne mooy borom bi yonent bi sallallahu alayhi moo wax ci na hadis ne yàlla du wàccee bàkkaar mukk lu may bàkk du wàccee euh, euh, balaa mukk lu may su bàkkaar yi bëree waaye du ko teggi mukk itam du may tuub gu ma sëkk xam ne ni ñaa ngi koy def jëmale ko ci moom kon suñuy loxo ngi nii suñuy loosa ngi nii ñu ngi lay tuubal yow suñu borom yàlla nga yàlla teg yàlla ñu yàlla teg gillal li nga xam ne mooy coronavirus bii ma nga xam ne dégg rek moo yàlla ñu ko yàlla defal te li nga xam ne digle na ko ci kum nattu ba teggi ko dana la jox xéewal yàlla ñu yàlla jox ay xéewal yu bare bare bare ci zahir ak ci baatin ci xis ak ci maana mbokk yi ñu leen di dénk ragal yàlla yàlla rek a jar ndax gis ngeen àddina bii xam nga ku doon werante day tey amatoo la werante àddina bi moom genn rek moo ko yëngal te kenn bokku ci doo ko tuumaal di Moussa doo ko tuuma Masamba doo ko Mademba moom moo ko def te moom rek moo ko mën a dindi kon ñun nañ jàpp ci yàlla te jaaree ko ci bunt bi nga xam ne mooy yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaarale ko ci nga xam ne mooy Cheikh na Ahmad Tidiane eh, suñu sëriñ suñu wasila jaarale ko ci abdu zaati madhar al asmaai wa sifaati Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bàyyi ku nga am wallahi utatoo leneen utatoo dara ci benn yoon yonant utatoo dara ci benn waliyu yàlla jox la lépp bam daj daana wax ne man su may dem fenn itam dox dox tànk lislaam rek moom ma tax a yëkkati waaye taxut dama fenn foo xam ne dama fay uti tey dara ndax yàlla jox na ma lépp Baye Mar danay nettali toujours ne Baye waxoon na ne su des bu àddina bi yëpp jeexaloon dund ba ba benn type des fi man la ko yàlla di jox kon mooy suñu sëriñ jaruñ ñu yàkkamti dellu itam ñuy xóotal suñu bopp bay ut ay tur yu bees loolu yëpp tardement la nañ dellu ci yàlla te tubal yàlla te xam ne yàlla mooy yàlla keneen du yàlla feneen du yàlla yàlla ñu ko yàlla jàppal dëggal dëggal te may ñu ci suñu càkkuteef ci zahir ak ci baatin ci xis ak ci maana mbokk yi ñu leen di gërëm ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu mboolem ka waa Dakar ak waa senegal ak lépp ak waa Nigéria ak képp koo xam ne yaa ngi mbokk ci mbooloom baay ñu ngi lay jotal nuyoo xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane ak suñuy nuyoo yaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayyidina alhamdulillah jërëjëf.